tey jii kon ñu joxe ay quelques ma tàmbalee ko nag ci bu am solo ama di tëjal ma indicatif ba mu sës rek waaw kay bu kenn nooyi bu maa ngi leen di ñaan trois minutes yoo xam ne bu kenn nooyi na ñëpp ne tekk aj leen seeni nooyi parce que dama leen di bëgg a jox njariñ boo xam ne bu ñu rëccee tey bala ñu ko amati déwén te billaahi wallaahi watallaahi képp koo xam ne def nga ko bu ci yàlla àndee sikk sàkk amu ci ne at mi nga ko def balaa dellu si sa wërsëg dana yokk ba dootoo soxlaalati kenn dara yow kay dañuy wut si ci yow wërsëg waaye dootoo taxaw ci bunt mukk di fëgg ndax suñu borom dana feesal say poos ba mu fees dell ak xaalis te lii ma leen di bëgg a wax waxuma la ab sëriñ de waxuma la tariixa de waxuma la kilifa ak diine de waxuma la mag sàngam de ñépp ci dëppoo murit tiijaan xaadir laayen ku gëmul tariixa ñépp ci dëppoo ci ne képp koo xam ne defe nga ko nii ñu ko waxe suñu borom dana ubbi sa wërsëg lool ba mu yéeme sax nag ci at mi nga ko defee nga xam ne at mooma mën naa dabaatal mboolem at yi nga passé woon ci sag dund te sa koom-koom demeewul noonu lii may bëgg a wax boo ko defee même bu yemee ci émission tey bi moom kese sax ñu ubbi téléphone bi doy na parce que gis nga amadi lii tarbiya gu metti liggéeyal kilifa liggéey bu metti sonn ci joxe alal yu bari moo doon tax nga am secret bii te ci weeru rajab bii kese lañ ko mën a defee nag bu weeru rajab xasee rëcc déwénati te lu mën a tëj sa wër wërsëg amadi boo ko defee mu ubbeeku te boo koy def booy tegg sa tànk tàmbali koo gis waaw ay ca bismillah xam ngeen ginaar googu tudd naat amadi xam nga naat mooy lii am tupp tupp yi da jënd ak naat boo mënee am naat gu weex moo gën boo mënta am naat gu weex nga am gu ñuul wala beneen couleur boo am baax na mais ginaarug naat du sax ganaar naat la tudd mais man ma indi baatu ginaar pour ngeen gën a comprendre am na yére bu ñu sol bu tudd naat yére boobu ak naat gi ñooy niroo moo tax ñu tudde ko naat léegi nag boo jëndee ak naat dafa am looy bindulu ci saafara nag dama leen koy wax ngeen daw bindulu ji ko sóoratul waaqiya guddul juróom-ñaari yoon ngeen koy bindul sóoratul waaqiya juróom-ñaari yoon boo noppee nga jënd naat gi ray ko suqi butti def lépp ba mu àgg raxas ba mu set nga defar na ko bëggee nga nga def ko ci saafara soosu nga xam ne moom nga bind muy juróom-ñaari waaqixa yi moom ngay ñuluge togg ci naat gi mën nga cee def nag li nga bëgg a safal waaye sauf laaj laaj moom dañ ko ciy bañ boo ci defee laaj rek day toj yàqu na lu dul laaj mën nga ko cee def boo mënee moytu itam buyon yi moo gën mën nga cee def xorom mën nga cee def yeneen yoo xam ne dana neex dana saf te laaj du ci am waaye laaj daal lañ ciy bañ baqalatul xabiis la ko yonent bi tudde woon muy lujum bu bon bi léegi nag kon boo ko ñu légee saafara soosu nga togg ko ba mu ñor nga lekk ko yow dong nag kenn du ko bokk ak kenn pour mu leer nga lekk ko ba mu jeex parce que naat bariwul mën nga koo lekk léegi dem sa yoon nga lekk naat gi ba mu jeex boo noppee yax yi ak donc yi nga suqee woon ci naat gi ak butit ya nga ca jële woon ak bopp beeg tànk yi yépp nga boole ko gas ko ba mu xoon nga suul ko boo ko mënee def sa kër baax na boo ko mënta def sa kër nga def ko sa buntu kër xam naa nag dana compliqué yenn ci dëkkuwaayu ndakaaru yi waaye bu ngeen di tabaxati na ngeen am benn espace bu ndaw boo xam ne kenn du ko karo kenn du fa def dara pour en yu mel nii loo bëgg a suul nga suul ko fa mu concerné sa kër bu fekkee am ngay kërit am nga kër fii Dakar am nga kër Touba am nga kër Tiwaawoon am kër feneen kër goo ko man di def baax na mais nay sa kër rek incha allahu taala boo ko defee nii ma ko waxee amadi amul sikk sàkk ci ne at moomu sa wërsëg dana ci ubbeeku ba yow ci sa bopp sax dana la yéem ma bàyyi leen ko xel naat ngay jënd gu weex gi boo ko amul jënd gu ñuul boo ko amul goo am baax na nga bind lu juróom-ñaari waaqiha sóoratul waaqiha même bu dee saafara si benn juróom-ñaari waaqiya amadi bind nañ ko tey waa rajo bi yëpp mën nañoo bokk saafara si waaye ku ne sa naatug bopp ngay jënd nag toggal sa bopp waaye benn saafara bi ñëpp mën nañ koo bokk téeméeri junni nit mën nañ koo bokk ajowul ku ne di bindal boppam ay daw leen ci bindkat yi ñu bindal leen juróom-ñaari ngeen jënd naat gi jamb saafara si ñu luge ko togge ko naat gi ba mu ñor ngeen lekk ko yéen képp yow képp yaa koy lekk ba mu jeex boo noppee yax ya cay des ak bopp baag tànk yaag maanaam daal doo ci sànni dara dara doo ko ci sànni loo ci sànni rek baaxul la nga mënta lekk lépp danga koy boole gas ba mu xoon nga suul ko sa biir kër wala sa buntu kër boo ko defee at mooma ah mën naa cee joxe misaal sëñ Fallou day fonkoon na ko te day daana ko digle doy na ci sëkk misaal yeneen kilifa diine yi ci yeneen tariixa yi ñëpp a ko fonkoon itam daa ko digle secret la boo xam ne nag ñu koy wax bariwul ñu bari dañuy préférer ñëw weexal la nga defal leen ko loolu kenn mënu koo defal kenn mbind mi rek lañ la mën a defal.